politique bu muy amal ci dëkki dëkkaan yi nekk ci Sine Saloum candidat pur bi Aliou Mamadou Dia xam la ne daje na ak askanu dëkk yi di Gaage Chérif Gaage Modi Goudem Ndofane ak yeneen dëkk yu fasante ko ci biir Sine Saloum candidat pur bi di xam la ne waa kaw gi ñu ngi dund ay jafe-jafe yu mit département de Kaolack lépp loo xam ne population yi ñuy dajeel ñu ñu koy wax mooy amuñu ndox président mooy président amuñu yoon yu ñu jaar mooy président ay bu ñu feebaree pour ñu faju problème la. ci xolu Sine Saloum bi nga xam ne mbéy lañu yaakaar candidat wu PUR bi xam la ne développement réew mi mënul am tant que mbéw mi méngalewuñ ko ak jamono waaye tam ñu fexe da ndox mën a am fépp ak saa su ne yu ko nit ñi soxla mbéy ndox moo koy boo amul ndox doo béy donc jàppuma ne Sénégal au vingt-et-unième warati nañ toog di xaar yàlla ji taw pour ñu gañ te ndox am ci dëkk bi ndox am ci réew mi jàpp naa ni war nañu fexe ba def ce qu'on appelle wax naa ko lu dul benn du ñaar la maîtrise de l'eau tant qu'on ne maîtrise pas notre agriculture ne va pas addu yi mu yëkkati ci tournée bi muy amal ci biir région yi di Fatick Kaolack ak Kaffrine candidat wu PUR bi Aliou Mamadou Dia moom profité ci jàkkaarloo bu mu doon defal ci ay militam yëkkati ay kàddu jëmale ko ci ndaw ñi ne émigration clandestine bi nañ ko teg ci suuf des ci réew mi fal ko ngir mën a dundalaat yaakaar ci ndaw ñi.